di faslun fi shuroti salaati ci ay sarti julli wa shurootu salaati sarti julli mooy taxaaratul xadas ak taxaaratu xabas laab laabu xadas mooy amoo woon njàpp léegi am nga taxaaratu xabas mooy sobe taqoon na la dara léegi dañ na mu mu laab minal badani jóge ci yaram wa saw bi ak sér wal makaani ak place suñu dee wax laabu xabas yett yooyu tax ñuy wax ndax yett yooyu la julli am soxla yaramu kii julleeg si yaramam ak palaasam feneen fu sobe sa yoonu julli gi nekku ci soo nee ci néeg bi sobe si ne fi basan basangu yaa sobe fi nekk yoonu julli gi nekku ci fexeel ba booy julli bul yëngalaale sobe sa rek wa satrul awra teeg sàng awra ci sart yi la wa istiqbaalul qiblati jëm qibla ci sart yi la wa tarkul kalaami wa tarkul afaalil ba bàyyi wax mutlaqan ci sart julli la tarkul afaalil kasirati bàyyi jëf yu bare yoo xam ne min xayri jinsi salaati yu bokkul ci xeetu julli moo tax nuy wax amma jëf yu bokk ci xeetu julli kooku ñàkk ko bàyyi te mooy def ko ca te di ko tey day yàq julli benn sujjóot képp xeetu julli la te barewul waaye bu ko waaye teyee def yàq na julleem naka noonu benn ruko naka noonu leneen waaye lu bokkul ci xeetu julli nag moom bare gaa mooy yàq julli néew ga du ko yàq soo doon julli dox yaari jéego ci biir julli ah, fenn kii ci sa yaram nga wokk ko ndànk wala sa sér nga jékki-jékki yëlëb ko benn yooyu jëf yu dul xeetu julli la su barewul du yàq julli gi waaye su baree nag nga julli ba yàgg nga waaxu dem ca portemante ba su nimbu bi nga soloon sol meneen di defe ne yaa ci ne sa julli yàqu na lu ko def dangaa yokk jëf yu bare yu bokkul ci xeetu julli su bokkee ci xeetu julli loo ca tey yàqu na waaye soo ko tëyul nag ba moom it bare bu jéggi dayo doom na yàq ni ki nga dolli ci dulli julli mislaha lu toll ni moom kon loolaa koy mën yàq euh, euh, wa satrul awrati euh, wax nanu wa awratu rajuli awray góor nag bi ñu tuddee sàng awra bu dee góor maa bayna surrati illa rukba diggante jumbox ba ca wóom su yooyu sàngoo moom julleem dana mën a wér xanaa li ñu soppoon ah la xadis ba ni euh, sant ni euh, bu leen jullee saraawi euh, wa tukrahu laxdari wax na ko wa tukrahu salaatu fi sarawil illa ida kaana fawqaha shay nit daal bu solee tubéy di julleet bëgg nañu nag mu teg ci kawam dara ama sarawil nag moom mooy pantalon moom it ku koy jullee ñu bëgg nga teg ci kawam dara ni nga xamee ni sa yaari mbagg yet dañoo sopp kuy julli nga am loo ci teg wal maratu jigéen kulluha léppam awra la war lépp la war sàng buy julli maa adal wajha wal kaffayn lu dul xar kanamam ak ñaari kaffam li yem ci tiw jara wa tukrahu dana ñu sib asalaatu julli fi sarawili ci tubay pantalon